ناصر الحق وناسق الظلم منقذ البشرية من براسل الويل والغمة الذي بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكم وعلى آله وأصحابه غر المعجلين وسم المبجلين أيها المشاهدين الكرام بتلفزتكم المفضلة ندم تيفي أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة ala wa hiya salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki mu ngi noonu ginnaaw ba ñu sant yàlla sant ko cant gu méngoog jëmmam ju tedd ju màgg ju sell ju barkeel jooju julli ci sayyidul wujudi wa alami suhudi sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla yàlla defar suñu mbiri àddina waaye itam yàlla defar suñu mbiri alaxira ci daraje yi yàlla mi am ci daraje yi sayyiduna muhammad mi yàlla amul ku dul moom moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu nuyu mbooleem téléspectateur ak téléspectatrices yu ndam TV yëpp ñu jaar jëfal leen yéen ñi nga xam ne yéenay safoo seen émission mag bii di Al Moukhtar ñu fi fiy waxtaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ziyaara ñëpp di ndokkeel ñëpp ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm waaye nuy bu baax a baax mbooleem xalif généraux yi ne ci réew mi dem Tiwaawan nuyu xalifa ba Serigne Babacar Sy man suur ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér lool ak njabootu Seex si Seydi Hajji Maalik yëpp dem tuubaa nuyu nuyu xalifa ba Serigne Muntaxa Basiru ñaanal ko mu itam mu yàgg fi lool te wér lool ak njabootu Cheikhil Xadim yëpp ak mbooleem xalif généraux yi na ci réew mi ñaanal leen seen toogaay yàlla gën ko yàggal seen yenn yàlla oyofal ko ci daraja yi yonent bi alayhi salatu wasalaam mbokki mu ngi noonu seen émission yi nonu dial muxtar ci seen télévision mak bi di Ndam TV ñu wara waxtane waxtaane yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon na leen le bis bu nekk dina am ay surprise ci li ñuy wara jange ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax jamono mënul dox te doxewul doxinu Seydina Muhammad nit mënul jak te yoru jikko yonent bi alayhi salatu wasalaam ci comprendre addunaam ci mbaxam ak ci yiwam way ci namu daan jëflante ko yàlla booleel mum yonent bi alayhi salatu wasalaam tey nag ñu war a dalal ay ndaanaan di ay jàmbaari Seydina Muhammad ki nekk sama ndeyjoor di al oustaz fadilatu Moulaye Dabakh an di suñu bàyyi it di suñu xarit di di suñu soppe di borom xam-xam moo ñu war a wax tey kan muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam sama càmmooñ alxaaji magay ñang di sama rakk mi itam di sama booy di sama soppe waaye itam di sama xarit mu war ñoo bàkkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal ko yàlla dolli ko sàmm waaye itam yàlla aar ko ci daraja yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam balaa ñoo def dara dañuy nuyu xañ mu lay aan mi na suñu ndeyjoor ñu bàyyi ko mu te téléspectateurs yi jàkkaarloog moom war a déglu tey kan ay a Muhammad xaj mu lay maa ngi lay ziara xaj Abdallah ñu ngi lay fay nuyoo di la ndokkeel bu baax a baax di la ziar mm-hmm. di ziar mbooleem ñu ñëw bokkal plateau bi nuyu alxaaji Magay ñaan tabarakallahu ñaan mm-hmm. ko moom itam yàlla sàmm ko dëgëral ko mm-hmm. téléspectateur ak téléspectatrice u Ndam TV nuyu directeur bi ak mbooleem ñu dëkkee kër mhm. ñu ngi lay nuyu bu baax la ñu ngi lay fay nuyoo xaj mu lay an di la jaar jëfal di am mbégte bu baax a baax ci sa teewaay ci télévision bii li di Ndam TV ñaanal la yàlla dool la dëgëral ci daraje Seydina Muhammad ma ñëw sama càmmooñ euh, fegook sama rakk sama sama xarit sama waykat tabarakallahu xaj ma ngay ma ngay di jàmbaari Seydina Mohamed ma bàyyi la nga nuyoo te spectateur yi jàkkaarloo di la seetaan. tabaarakallaahu nuyoo ñëpp ñëpp kuy suivre Ndam TV. Mm-hmm. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taalaa wa bépp xalifa généraux bu nekk ci Sénégal. Mm-hmm. ñu ngi lay nuyu bu baax. di nuyu nag suma wayjur bi nga bu jigéen bi ma bàyyi ci kër ga. Mm-hmm. muy Adja Soxna Mbuub. di nuyu sama soxna bu baax. di ko ziar di ko ñaanal yàlla. yal na yàlla defal ko jàmm si barke bi sallallahu sa wa sallam di nuyu di jiitu sax ñu nuyu oustaz mu lay aan nga xamante ne moom suñu waay la mooy suñu oustaz bopp suñu oustaz préféré tabarakallah suñu oustaz lay aan wuñ kenn di nuyu gaa yu baax yi ma àndal nga xamante ni ñoom fu ma jëm rek ñoom lay ñoom lay àndal mm-hmm. ba buñ doon dem ba xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fa tàggent ñoom lay àndal di leen ziar baax yàlla na yàlla barke barakallahu ñu ngi lay fay nuyu bu baax a baax xaaj ma lay xaw xaaj ma gay di la jaar jëfal ñaan la yàlla barkeel la ci daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyu ñi nga àndal suñu rakk yu baax yi le ñaanal leen ñoom itam yàlla dool leen barkeel ci daraje Seydina Muhammad mais ma beral ci nuyoo sama waykatu bopp mooy xaaj ma saba moom mooy sama way barakallahu loolu yàlla dogal na yàlla barkeel ci daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais xaaj ma gay balaa ñoo dugg ci waxtaan wi dama bëgg bayyi la ci spectateur yi sopp Seydina muhammad jakkalo yo jël setan nan nga leen di fatahna bis mi fatahin li fatixil xayri unwanun شكرنا الله hada aunin فحق العبد شكرا بليون فتح النار باسم فتحي وفتح الخير هلوا وينا سكرنا الله هذا عوني فحق العام سكرا لين حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان فتحنا باسم فتح waa jàng Medina sakkan Allah sa'awni fahaqul abdi sukur yonenti rasulun اسمه أحمد نبي قدره أمجاد وهو خليل خلقه أسعد من الخلاق جروي فتحنا باسم فتح ليس لفتح الخير عنوان سكن الله زعوني فحق العبد سكون يننتي بي خراشي ينو بصير هاشمي أبتخي أي بل أبا خيار الناس ذو شأن لخير الرسل ختم جروي فتحنا بي ليل الله ليس لفتح الخير عنوان وواو الله زعوني إيه، وعاوني قل عادس وجه مدينة هو الصدر المحلى ذات ذاته الحية العليا وهو البدر المحلى قدره لم يبي راجر وفتحنا بي ونمتي بفتح الخير ونمتي بي سكن الله هذا وحق العاكس أي بي أسيل لخادي تامن قادي لين رادي عليا ولين كافي هل تدري منادي باجي ليا بس أسيل أبلاي أبلاي أبلاي laay bégal. walaylul kaafi hal tadri. dina di. Muhammad yaam yaay suñu yónnee. asilul xaadi. taamul xaadi. lay nooraati aliya. ولينك في هل تدري من عدي بعد أسيل القد تام الخد ليل راكي عليا ولينك في هل تدري محمد يا يا سني وذوق خلق عظيم طيب الأقلا ما مدخ يليق ذات العالي لو المدق حسن أسيل القاتل قد تام قد لين مرادي علي اليمين الكافي هل تدري من اتباع لي لقد شكوا فهذا العبد موصوف بفرتي زين وصوف خليل جرم والجرم كثير منك أحسن أسيل القاتل ينتام قد لين راني عال الليل ديسان تكريني بنادي بالي لقد تكون رجائي منك غفران لذنب نازم الوالي وللأسلاف والأسلاف أحسن ممن في إبان أسيء الخاتم قد تام القاتل حال يا وليل هل تدري من الديبان إليّ baarakallahu xaaj ma ngay ñang ñu ngi lay jaar jëfal bu baax a baax di am mbégte ak contentement ci li nga ñu ibbilee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam na yàlla fay la yiw ci daraje si jura Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee xaaj mu laay baax euh, ma ñëw ci yow nag ñu war a dugg nag ci li nga xam ne mu ñu ma xaw na laa taal tuuti cuq la pour nga tàkk ñu war a waxtaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais mu laay li ma bëgg a xam ñaar la bëgg naa nga wax ma kan mooy Seydina Muhammad mais bëgg naa nga wax ma dara ci mbaaxu rasulullah xaj mu lay barakallahu oustaz alxaaji abdallah ñu ngi ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax a baax a baax <laughs> di jërëjëfal alaaji mëgëy ci am daax yu am solo yooyu mu doon mu doon mu doon bàkk léegi tabarakallahu <laughs> mais oustaz da nga ñu laaj mbaaxu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mbaaxu rasulullah ak kanay sayyiduna muhammad yonantu bi la kenn xamul lan la mm-hmm. ndax géej la goo xamante ni as jeexalu ko mm-hmm. géej nag abdallah mm-hmm. li nu xam ci sayyiduna muhammad boo jëloon puso capp ko ci géej lay ca puso ba loolu la nu xam ci sayyiduna muhammad sallallahu wa sallam waa ji kenn mënu koo xam est ndax mom la yàlla amul kudul mom mom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mais mbaxam mbaxu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ablay biñu ñu je jambat jàmbaat ji Cheikhul Hadji Malick góor gëcca Tiwaawan góor gëcca septième gaar borom dal lu mukk yi Cheikhul Hadji malik dafa wax ni fi kaffihi khayru shifaa'i wa rahmatun isbaaku juugin wa xilaaku li amin lol moy lan muni fi kaffihi mhm. Nek na ca tenk rasulullah ya khayru shifa yi gën di saafara taxumaa jóg mhm. Mhm. mais wa rahmatun ak yermande lolou moma taxaju lay waji yen say da nga ko dan ko yakarni day fayu mustafa Ball mom Seydina Muhammad mom yonantu bi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. daf dang ko dan togn mu jëkku la mën a fayu Balla. sallallahu alayhi wa dafa am benn bis. Mhm. njool màkk toog ci bénc mi benn waay waaxu waaxu mu tàng jër ñëw ci Seydina Muhammad mhm. ni ko Muhammad yow yaay wër di wax naan yàlla la yónni te boo amee leen nit ñi bor doo leen fay xaalis bi nga ma amee Moustapha dimbali ma nga fay ma ko. mu wax loolu yonent mu wax loolu Seydina Muhammad Seydina Ali di buftandiku ni day rey waaj wallahi alazim Moustapha ni ko Aliyun xam nga lan la kiy ñëw di fayeeku alalam bu ma ko ameel moom kay bu ko wax dara man nga war a woo ci ruq ni ma Moustapha del fay bor woo waa ji ba mu ñëw ni ko bu ëllëgee bu ma la amee lee bor bul ma fekk ci pénc mi di ma toroxal ndax góor kenn du ko toroxal ak baax sallallahu alayhi wa sallam ni ko bu ëllëgee su ma la amee lee bor woo ma ba ma ñëw nga ni ma Moustapha fay ma sama bor su ma ko amee fay la ko su ma ko amul ñaan la dele di kat toog waa ji wàññeeku waaxu waaxu mu tàng jër ñëw fekk yontu yàlla Muhammad toog sallallahu alayhi wa sallam ni ko mhm. dama wër péncu màkka ak li wër màkka dem Madina fu ne ma wër fa di laaj waaj mhm. ku ma laaj mu ni ma yaay waaj mhm. tey nag ma doon ñëw di xool si ndax yaay waajeem déet moom yonent bi moom moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ko wër naa fu ne ñu ni ma yaay waaji bi nu ma ko waxee lànk naa di lànk naa ni doo waaji mm-hmm. mais bi ma ñëwee tey laa xam ne yaay waaji sallallahu xam naa ni kenn du la fekk ci mbooloo ba ërtal la gis sa jikko bu ñaaw ndax yoruloo ko oh. ni ko kenn du la fekk ci mbooloo ba tooñ la nga réagir ndax yoruloo jikko boobu sallallahu alayhi wa sallam ni ko Moustapha yaa gën a baax ñëpp mm-hmm. yàgg na a tedd ñëpp yàgg na yow ñëpp laay sa waa ji góor ñi moo leen gën di gor ndeysaan géer ñi moo leen gën di géer ñi baax ki leen gën a baax kenn la te mooy yonentu bi sallallahu alayhi moo tax bi ko yàlla di wax ni ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan xaliisal xalbi lan faddu min xawlika yàlla ni ko faafu anhum واستغفر لهم وصاورهم في الأمر فإذا حزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ndeysaan yàlla ni ko ci sababu yërmande bu tukkee ci man ñeel la linta nga noyee am li nga am lépp oh. ni ko boo dëgëroon xol wala nga xat xol wala nga gaaw a énervé kon gars yi du ñu bëbbee ci yow kër Cheikhul Hadji Malick boo demee mu fees loolu mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la kër nga dem mu fees kër Cheikh bu Kunta Njaasaan mm-hmm. foo dem kër Cheikh al Islam fees loolu mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mbaaxu sayyiduna Muhammad la sallallahu alayhi moo tax keroog bi Abaa Jahlin taxawee ci péncu Màkka mi ni ku ma andil bopp rasulullahi dinaa la jox ñaat téeméeri gilléem ku ma andil bopp Ababacar ma jox la ñetti téeméeri gilléem suraaxata taxaw ci pénc mi dégg ko te moom kat sang fas la daan liggéey moom suraaxata moom suraaxata la woon da daan sang ay fas ñu koy fay mu toog péncu màkk dégg abaa jahlin ni ku ma àndil bopp rasulullahi ma jox la ñaat téeméeri gilleem ku ma àndil bopp ababakar ma jox la téeméeri gilleem kuy dundee kuy sang fas ñu lay fay nga dégg ñetti téeméeri giléem dafa yóbbu sa fit da ngay daw mm-hmm. da dugg këram mm-hmm. solu soli nu xare ngir dabi rasulullah ngir dabi sayyiduna muhammad solu soli nu xare mm-hmm. war naaru góoram fa séenee rëppatal fasam di dabi Seydina Muhammad keroog lay dawal fasab bu jub njool makk génnee jaas ji wëndeel dem ba koy dóor Moustapha suuf wan na ay tànkam suuf moom suraaxata keroog la jàkkaarloog Seydina Muhammad ca mbaax ga jekk waak taar wa boo ko xoolee doo bëgg bàyyi moom Seydina Muhammad ndax ku yàlla bind moo la gën a rafet mhm. keroog lu koy tinu di ko baalu Moustapha baal ma njool makk ca mbaax ga ni ko baal naa la baal naa la suraaxata kon mu laay su ma la déggee mooy yaa ngi ci mbaaxu rasulullah maa ngi ci mbaaxu si juróom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jol màkk ni ko suraaxata baal naa la baal naa la suraaxata suraaxata waññeeku di ñibbi màkkatal mukarram magay te te te suraaxa mi yonent bi baal moom bopp si junaa Muhammad bopp si junaa Muhammad la soxla woon déggoo ma ni la sànq da nga koy tooñ mu jékku le meuna fayu xol la ba seppali la baal ci rasulullah motax yàlla waxon ko niko mustafa tëdd ngay jikko ya nek ca bopp wa innaka la ala khuluqil azim niko tedd ngay jikko yunun tubi ya nek ca bopp sallallahu alayhi wa sallam kero ablay suraaxata jol màkka bal ko mu wagne ko war a ñibbi màkkatal mu karam mais xelam dem ci ñetti téeméeri gëléem yi kuy sang fas ñu la bopp diw ko àndee am nga ñetti téeméeri gëléem alal ju bari da ngay jaaxle suraaxata wàññeekuwaat xelam dem ci ñetti téeméeri gëléem yi mu wàññeekuwaat di dabi rasulullah moom mi nga xam ni moo doon dab Seydina Muhammad di ko bëgg a rey Moustapha baal ko moo wàññeekuwaat di ko dabaat moo wàññeekuwaat di dabi rasulullah ndax xelam moo dellu ci ñetti téeméeri gëléem yi keroog mu dabaat Seydina Muhammad njol makk ànd ak Ababacar di dox dox wu tedd wa doxin wu yiw wa ak bu bu rafet ba moom yonentu bi salaay sa laay ñetti façon dox am ñetti façon dox ñetti façon dox am muy ban ak ban tumpung tumpung mhm. yëlis yëlis bëxër bëxër mais xaj mu laay tumpung tumpung ak yëlis yëlis ak bëxër bëxër lan mooy seen différence bëxër bëxër doxinu dof la doxinu dof doxinu dof la bëxër bëxër moy, dox sànni say tank gauche ak droite. fu ne rek. c'est lolu doxinu dof la. Mhm. mais yelis yelis doxinu ku ñak dépense la. du bëgg gaaw ak kërëm këram. yelis yelis moy yolos yolos. Moy tempang tempang tempang koku ablay moy ki dox du yor doxam. wa du yor doxam. du bëgg gaaw ak kërëm doxinu ku ñak dépense la. mais tumpung tumpung doxinu sang la. doxinu daanan bu daan dox mom rasulullah daan tumpung tumpung. sallallahu alayhi wa sallam rabbul alamin bu daan dox da daan tumpung tumpungi jool màkka di dox sallallahu di dox suraaxata dabaat ko wëndeel jaasi dem dóor suuf wan ay tànkam moom suraaxa moom suraaxata di baalu nag di commencé di baalu Ababacar ni ko Moustapha sa mbaax gi nga baax man xam naa ko maanaam xaj ma laay su ma la déggee mooy suraaxa suuf wan na tànkam ci pour la deuxième fois pour la deuxième fois rasulaay baal ko njool ma muy tinu muy baalu kër mm-hmm. ñëw mm-hmm. ni ko ko man xam naa ni di ko baal mm-hmm. ndax ni nga baaxee xam naa ko mais boo ko baalee ba mu dabaat la dinaa ni suuf wan nan suraaxata te man Babacar juboo naag yàlla jubóog yàlla boo xam ni su ma nii suuf bul bàyyi suraaxata suuf du ko bàyyee ci ilal abad suraaxata xam ni pexe jeex na oh. njool màkk bal ko mu sànni jaaseem raam wutali sëngu àdduna ak laaxira sallallahu xabibu rabbul alamin xujjatullahi ni ko Moustapha wër naa waa ji ba sonn ñu ni ma yaay waaji ma lànk mais bis ni ki tey xam naa ni yaay waaja kenn du la fekk ci mbooloo ba tooñ la gis sa jikko bu ñaaw yoruloo ko ni ko ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullahi ñu dem ci waawan laaji jàmbaar ji góor ga ca siccim gaar boroom dallu mukki yi boroom sikkim bu xajaloo bi borom yëre yu gàtt yi ngir ragal dëgg sobe mawlaana Seex Sidil Haaji Malick Si Maodo ni falillaahi mhm. falillaahi isaaxat jawaadu suraaxati xawaa'imuhu baada rujugi yaqulu aba xakami wallahi law kuntu shaakidan amaama jawaadi wala juuju jagulu falillaahi isaaxat jawaadu suraaxatin waaw góor waay falillaahi nga ni falillaahi isaaxat jawaadu suraaxatin xawaa mm-hmm. imuhu قوائم بعد الرجوع يقول سمام شيخ الحاج مالك فخنا بلو سيدنا محمد صلى الله إسا قد جواد سراقة سيد الحاج مالك فخنا بنو خم كلي رسول الله صلى الله إسا قد جواد سراقة يبول تلو خم رسول الله ما فخنا بنو خم سيدنا محمد صلى الله إسا قد جواد سراقة وصعب ينك خم خم لب bu yonent bi jaaroon fii ma i la kee di lépp bu njool makka jaaroon fii ma joxoñ la ko falillahi isaaqat ci dimbali mooy suraaqatin كبروخي أو حب الغمام ولله جواد سراقة لدبتداء إبريق شم عنقه قل عرقه ولله جواد سراقة لك لآلي بل فوقها إيه، فلله جواد سراقة صبر الاسامي مطيب وكأن في عرنيني وصف السمامي فلله إساقا جواد سراقة حج مالك في كفه خير الشفاء ورحمة إسباغ جوغ وإلى كل آمين كفي جنا سيدنا محمد فلله إساقا جواد سراقة ميخة رسول الله لا على جماعي دي مني في كفه ريح تفوه وتزدري ريح الخزامة أو صف المضام لا إله إلا الله فلله إساقا جواد سراقة حاج مالك نقدي لا نكتلي إلا درون سراقة تدق أنت مكسجنا محمد يا سيد الكونين يا علم الهدى فلله إساقا جواد سراقة فلله إساقا جواد سراقة حاج مالك فلله إسكيمهم يلا إس جمونا بنا خمني ساقا مانغنا ولا ساق بوم بجي دق مني لا ساقا نجرونا falillahi isaqat jafaatu suraqatin mu ni falillahi is kay mayam yàlla is jamono ba nga xam ni saaxa ngiru na jawaadu suraqati naaru góoru suraqa ba falillahi isaqat jawaadu suraqatin mu ni xawaayimu ay tànka baada rujuhi nag gannaaw ba mu ñibbee e yaqulu wax na de xawaayimu baada rujuhi yaqul ndax suraaqata nee na man daal Moustapha li ma dal ci sama kanamu naaru góor bi il faut ngeen bàyyi ma ma wàññeeku dellu màkkatal mu karam pour mën koo nettali abaa jëglin oh. jamono ba nga xam ni ngiroon naa ci sama kanamu naaru góor ba oh. keroog ba ma ñibbee yàqulu wax naa falillahi isaqat abaa xakam nag waa màkka ñoo ko daan woowee abaa xakam ndax bu daan def seen réunion yi ak seen séminaire yi di fexe nu nu rayee Seydina Muhammad ah. mu daan mujjee wax walillahi isaqa jawaadu suraqatin waa màkkatal mu karam di ko woy Abaa Xakam mais nag njool màkk moo ko tuddee woon Abaa Jahlin mu ko Abaa Xakam yow Abaa Jahlin bi hmm. wallahi giñ naa ci yàlla ni law kunte boo nekkoon cheikh yi de di ma seede amaa ma jawaat waa ci sama kanamu naaru góor bi su boobaa di nga xam ni wala jooju nuur ci kéeféer jëgulu loolu abaa ركعتين والله لو كنت شاهدا أمام جواده واللجوج جهوله لقدام yow Abba Diegline li ma dal ci sama kanamu naaru góor bi boo ko fekkee woon di nga xam ni dee ci yéefee loolu réer la Abba Hakam nag ma gëy moo wóolu woon njol mag moom Abu Diegline moom Abu Diegline moo wóolu woon Seydina Muhammad fekk gas na kàmb gu xóot lal ci basang sotti ci kàmb gi suuf ngir bu wooloo yonentu bi sallallahu alayhi wasallam njool màkk ñëw jaar ci kaw basang gi tàbbi ci kàmb gi mu suulaale ko loolu la wolof yu tuddee ndëgg sërëx ndëgg sërëx mhm. woolu Moustapha mhm. keroog nag laay bi mu wooloo yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ni ko doo dem ndax li mu la fi def bërki démb ndax moom Habib ibnu Malik dafa yónnee woon ay teraanga mm-hmm. ci sayyidina Muhammad mm-hmm. ay teraanga ci mm-hmm. yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bi teraanga yi agsee mu ni moo ko moom ci loolu nag njol màkka am dëgg ci kaw Aba Jahlin Aba Jahlin loolu metti ko muy fexe nu mu reyee sayyidina Muhammad oh. ndax kilifa la biir màkkatal mukarram kilifa la te kilifa gu toll ni Aba Jahlin nga toroxal ko ci péncu màkk mi ñëpp di gis muy fexé numu mu reyee Muhammad ñoom sax am borom xam-xam ñu wax ni kilifteef gi mu doon ñoddi mo Abu jehlin motax nangul won woon Muhammad nangul won yonent bi ndax yaakar na ni Makka bu fa yonent de am moom la waron mom wara doon yaakaaroon na ni mom la wara doon njool Makka doomi Abdallah adnani okay okay leeral nga kawnu bi teddal nga ñëw màkk yow doomi Abdullahi Adnaani leeral nga bi teddal kulla insaani mhm. mboolem teray ak xiiwul yaa ko waral mhm. yay suñu wasilatu aqna inda rahmaani yenent bi si géeju xam-xami moo wàll jëm ci képp ko xam mhm. yaayi seddu yaayi sedde min wa irfaani yenent bi yaay safatul xalqi yaay xayral bariyati yaay sangub arab ak Europe yaa jiitu Sudan. yaa jiitu yónneen yi yaa leen sédd luñ mës a am. yaay seen wasilati yaay seen diwaani. bu lay ànjëneent bi yaa tax malaaka su jootal aada yaa ko xamal. tur yam tuddee yaa def tardu seytaani. yeneen bi yaa tax ba nuuxun labal noo ne mi jël ñetti des tabal mhm. ca gaalam gi is ki yow ma tuufaani mhm. ibrahima bis buñ ko sànnee ca taal la ca xew mhm. ba wax ni yaa naaru kuuni yaa ko santaane keroog ba muusa dajeeg firawna ak kuréelam ca baaru xalsuuma yaa tax mbir safkaani nabi isa bna maryama ruullahi yaa ko abal ay mojisaatam ba muy def mbir yu kiimaane saar gi ci yusufa baat gi ci ndaamu da nguuru suleymaan ji yow mi yaa ko dénkaane biiru jën ba yaa ko fa yaa tax mu sabbal boroomam foofa xam naa ni gis naa biiru jën ba yaa ko fa yor yaa tax mu sabbal boroomam foofa xam naa ni yonent bu mu doon dem déclaré sa mbir ndaa naa ni ndaa naa ni yaa leen jox la ñuy daane yonent bi yaay musle yaay yaa xam yàlla yaa ñu wan yaay démb yaay tey di nandal ku la dam aani xiwal gu nekk ci kaw suuf yaa di xiin wa ko taw saxal ko meññal ko bam ñor neematal jaani mboolem la aljana la ci teraanga yu yaa tax ñu sàkku ko min raw xiin waray aanin jinneeg malaayika yaa leeni saytu bun mën a jëm yaa leen di ommat te yow lan mus di xaajaani ah. yaay xam-xamum alluway mahfuudu yaa ko saraa yaay lampatookun ci ay lammin yu kiimaane hmm. mun laa yaa yenki wal xalimaak burlaahu yaa ko xamal mboolem la mi marqué xam-xam yu baawaani hmm. firdawsi yaa fa ne mboolem pii bu yàlla tëral sawtur la fay marqué yow yaay suru rahmaani hmm. yeneen ci bi yaay leeru jant bi aras sunu yaa ko taal mi nuuri imaani yaay taaru makkata yaa leeral madina te yaa barkel kaaba ga ak zamzam bañi naane yaa tax ñu ormal ko yaay sellal barab yi yaa koy musal ko aar ankul sultaani mhm. keroog ba abrahata jiitee ak kuréel bëgg mhm. rappal kaaba ga lottel ku lor baani yeneen ti bi moo talalem bombardé yaa ko waral tayran ababilan tarmihim bi niiraani muhammadun xayri kii lañ tànn mooy ki fi gën a ku koy min jinnin wa insaani ahmada sidil wara sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ngi woon ci aba jahlin ablaay abu jahlin ndëgg sërëx gi mu defaloon rasulullah sërëx gi mu defaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam gaskam bu ba mu xóot barakallahu na yàlla barkeel la li nga wax neex loolu macha wax na macha allah. barakallah acca keroog Ablaay mhm. mu def ndëgg sërëx gas ba mu xóot lal ci basang sotti suuf si ci basang gi suuf ngir bu wooloo yontu bi sallallahu alayhi wasallam njool màkk ñëw mën ci dugg kon dafa lal basang bi ba pare muuree ko suuf ba kenn gis pour bu njool màkk ñëwee jaar ci kaw basang gi dugg dugg ci kàmb gi mu suul ko oh. keroog Ablaay mhm. njool màkk saxaaba yi ni ko doo dem mbokk yëpp sayyidatuna Xadija ni ko doo dem noonu la saay-saay la ma baba jëf leen mu ni leen ginnaaw sama kilifa la te sama baay la bàyyi leen ma ma wuy ji ko njool màkk dem di ko wuy ji ak ba ci buntu kër gi jibril ni layit cëpp ni ko Moustapha asalaamaaleykum yàllaa ngi lay nuyu yàlla ngi lay nuyu moom rek moo ko daan dégg. sallallahu alayhi wa sallam oh, ka baax. yàlla mi ngi lay nuyu. yàlla nee sa tànku ndey boobu bu mu fekk si bu càmmoñ bi. yàlla nee na sa tànku ndey boobu bu mu fekk si bu càmmoñ bi. kon mu laay dafay dellu si waat yow man yatawakkal allah. fu wa asbuhum nga ni ma yàlla nee na ku wakkiirlu ci man ma jàppale la li tax moom yonent bi li mu def yëpp fexe yi ñu ko fexeel yëpp te amul bu ci jàll laay wakkiirlu ci yàlla la loolu moo tax am wéeruwaay wu dëgër baax na ah am wéeruwaay wu dëgër baax na cheikhul xaj abdul aziz Dabakh nee na bu ma demoon ba amatuma benn kilifa ci réew mi ba ñi ma matoon kilifa ñëpp gisatuma leen dinaa dem wut benn bant samp ko muy sama kilifa te kon kilifa mun ta ñàkk ci doomu mënul ñàkk ci nit ku amul mul wéeruwaay da ngay neex a bëmëx te jaaxaan ngay def sax waaw dëgg la laay mhm. jibril niko, ko sa tànku ndey joor bi bu mu fekk si bu càmmoñ ñool makka taxaw arrière mhm. fekk moom abaa jëlil seen bi sallallahu alayhi wasallam tey bi yàlla def ci moom personnalité personnalité bi yàlla def ci moom moom yonentu bi salaay sallam boo ko gisee doo ko mën a xool doo ko fixé mhm. puisque dafa am personnalité bu yàlla wàccee ci moom mhm. Mhm. doo ko mën a xool ndax tey gee bëri mais boo jaxasoo ak moom bëgg ko sallallahu alayhi boo ko gisee doo ko ñeme mais boo jaxasoo ak moom danga koy bëgg sallallahu waaw ndax ñi baax moo leen gën a baax abaa jëglin seen yonentu bi sallallahu alayhi fekk boobu yàlla wàcce na ci njol màkk tey mu tiit jug taxaw di gàttandu rasulullahi faf moom mu dugg ca kàmb ga oh. moo tax wolof naan yéene néeg la borooma cay fanaan te léeg-léeg sax mu fanaan fa ba biddanti waaw laay mm-hmm. ñu dem ci misaal mm-hmm. kàmb gi vingt la ñu dem wuti buumu vingt mètres ngir génnee abaa nga pour nga dégg ma mm-hmm. bu ñu wutee bu mu vingt mètres ñëw yor ko ko kàmb gi yokk vingt cinq mètres ci biir ci biir gën a surux mu gën a surux ñu ni nañu dem wuti bu mu vingt cinq mètres wut bu mu vingt cinq mètres yor ko ko pour mu mën cee jàpp ñu génnee ko kàmb gi yokk trente mètres allahu akbar kon moom fu muy jaar ba génn moo jaaxal ñëpp ñu ni comme que moom saa bu nu ko yóoree buum gi mu yokk juróomi mètre comme que fi mu te nii kàmb gi mi ngi ci trente mètres nanu wut buumu pour bu yokkoo cinq mu mën a jàpp ci yeneen cinq yi mhm. ñu yor ko buumu kàmb gi yokk quarante mètres allahu akbar ëpp lim bi desoon ci buum bi bi desoon ci buum mhm. mu ni leen mhm. jaaxle mi ngi bëgg a ñëw fii ma ne gaw ma ni kenn mën na ma fee génne ku dul njibarkat bi nekk ci dëkk bi ñu ni ko kan la mu ne dem leen ma muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammadu nuuru abdillahi say bati haasimin wa abdi منافي ما خزي على نبي وعلي وواعي بنا سلام دائما آم أنا صبي أنا محمد نور عبد الله شيء بدأ وعبد منافي ما غسيه مالكنا على نبي وعلي وعلي من آب أنا صبيا يا غائس البحر للأصداف عندي أصداف بها درة آلام الجرائم يلتي بأجمعين سلام دائما عاد أنا صبيا كرامة بعدها في العدل منزلة هداية ونبوة فلا تهين على نبي وعلينا سلام ربنا دائما أبس أنا صبي انقلاب مرد كعب والويوة غالب غفير وما علي نذر الكائن على نبي وعلي ونمت به صلاة دائما أنا صبي وإذا أتى كان مسرورا يقال أنا صبي كما أنا صبي كما سيدنا محمد كلام جرى الله خيرك كمال سيدنا محمد كنا بجرى الله خيرك كمال نبني مجد بالله موضوعينك كمال أنا صبي صبيا ننتبي بالله مولد غيرك أنا صبيا ننتبي بالله مولد أنا صبي ونمتبي بالله مولد غيرك أنا صبي انا بي بالله ما وينك أنا صبي سن بابا كركونا بجار صلغتك أنا صبي انا ننكونا بجار لغيتك أنا صبي سن بابا كركونا بجار لغيتك أنا صبي سن بابا كركونا بجار لغيتك مديا نقمل ينن مديا نقمل xamal yónneen nodde yaa ñu xamal yaa ñu xamal yaa ñu xamal yónneen nodde yaa ñu xamal yónneen nodde yaa ñu xamal yónneen tibi yaa ñu xamal yónneen yaa ñu xamal bayu Fatima dafa ya toog yaa ñu xamal yónneen yaa ñu xamal daar gu di yónneen tibi nodde yaa ñu xamal yónneen yaa ñu xamal bayu Roqaya Zeynabu yaa ñu xamal yónneen daar gi ci yónneen waral amul ci àdduna targi ci yaanen waral amul ci àdduna targi ci yaanen waral amul ci àdduna targi ci yaanen waral amul ci àdduna targi ci yaanen waral amul ci yaa siidal kawnayni yaa alamal hudaa alaaji ma gëy nga ni yaa siidal kawnayni يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا سيد الكونين مجي يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا سيد الكونين استاذ عبد الله كيروغ لا ابا جهل ني تي كامبو غي ماني amul ku ma fi mën a génne ku dul Seydina Ahmada Seydil Wara keroog ñu wóolu yonent bi sallallahu alayhi wa àgg ni ko Aba Jëlin lu xew lan la. yaa sayyidal kawnayni yaa alamal hudaa. Moustapha ci kàmbu gii ma nekk kenn mënu ma fee génne ku dul yàlla. yaa sayyidal kawnayni yaa alamal hudaa. ko ndax bu ma la génnee ci kàmbu gi di nga tuub dugg ci dina lislaam. yaa sayyidal kawnayni yaa alamal hudaa. billaahi kàmb gii ma ne génn ci moo tee ma gëm la dugg ci diine lislaam yaa siidal kaw nay ni yonent bi yaa alamanoo daa makka ni ko abaa ndax bu ma la génnewee di nga tuub yaa siidal kaw nay ni ci kàmb gi moo ma dugg ci diine lislaam yaa siidal kaw nay ni yaa alamanoo daa yu tedd yi di yëg borom bi subhaanahu wa taala jël loxoom yu tedd ya fi kaf war shifaa'i wa rahmatun isbaaku juugin war ilaa kulli amin mawlaana Cheikh Hadji Malick moo ko wax jol màkk jël loxo yu tedd ya ndeyjoor bu rafet ba loxo yi moo gën a nooy coton boo ko nuyoo doo bëgg a bàyyi moo gën a nooy coton moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jël loxo ya dugal gël ci kamb gi kamb gi mel ni ascenseur di jug di jug ba abaa jërin ak si jàpp ci ay loxo njol màkk njol màkk mooy ko loxo mu génn mu ni ko abaa jërin yow laay déglu pour nga tuub dugg ci dina lislaam ko <laughs> yow sa njibar yi Oh. sa njibar yi ngay def nga xam ni waa màkk gépp ak li wër màkk njibar nga leen nga def sa njibar yi di xaar ma dugg ci diin lislaam waaye dugg ma ci diin lislaam muhammadul kii lañ tan mooy ki bi gën yaa sayyidal kawnayni yaa alamal daa naan sunu kaaba gii nga xamante ni ay yàlla yu bëri mi ngi ci sunuy aajo fajuwul mu bëgg ma dugg ci diine ma ko def yaa sayyidal kawnayni yaa alamal daa boobu yàlla kaste na xolu Abba Jël oh. yaa siidal kaw nay ni yaa alamal uda yaa siidal kaw nay ni yaa alamal uda ya sayyid al kawnayni yaa alamal huda nee na ko yow mi nga xamante ni yaay sangu univers bi yow Seydina Muhammad yaa badra ko yow mi nga xam ni yaay weeru mat wi fil wujudi alal mada fil wujudi ci mindee fi alal mada ci lef yaa xayra xalqillah nee fu yàlla yi yaa man faydu woo man woo nak nga xam ni fayduhu akuk bëppam moom rasulullah gi amal baraya nee na muntaha muntaha ci doytalam wal mubtada wal mubtada akuk tàmbali yaa xayra xalqin laay non yaa kaw kaban yaa kaw kaban yow mi nga xam ne yaay biddiw bi faaqal bu duuri yaa kawa weer wi bi xusnihi ci sa taar yow Seydina Muhammad yaa mursalan yow mi yàlla yónni bil xaq ci dëgg daw man sarmada sarmada ak dab yaa naasira diini nee na ko yow mi nga xam ne yaa dimbali diine ba diine dëgg tawimi wa alihi nee na ak ñunu diine yow Seydina Muhammad yaa saaqiyal kufaani nee na ko yow mi nga xam ne yaa nandal yee fii kaasaati rada yaa leen nandal kaasu alkande yaa baxra ilmillah nee na ko yow mi nga xam ne yaay giidu xam yàlla yaa kanzal itaar nee na ko xam ne yaay magasin joxe. yaa duratal akwaan. ko yow mi nga xamante ni yaay toquwaam. yaa xataran na daa. Oh, moom yonent bi salaay salaam ustaaz alxaj abdallah yaa rahmatan lil aalamiina wa izzuhum mhm. yaa gaayatal amali yaa mujli sadaa bi kanaalatil afaq kul fadilatin nee na ko yow mi nga xam ne yow Seydina Muhammad gox bu ne am na gëneel ak teraanga mi ngi ko amee ci darajee rasulullah wa tasarrafat lamma janaa baka xat badaa nee na ko wa tasarrafat la tëddee lamma janaa bu ko xat badaa keroog bindu la mooy móoree wa xalimatul barakaati nee na keroog bi la alima jubsee lamma aqbalat talaat wa misbaaqil kumaali tawaqada barakallah يننتي بهذا جمال الكون بارك الله هذا بدر هذا الذي من كل وجود تجدد ما يالا گن لا باركل حج حج مغي mais mais mais xaj mu laay ñëpp kontaan nañ fii daal képp ku la dégg ku ne gën naa yëgati rasulullah wax nga ñu kane sidina Muhammad mais wax nga ñu mbaaxu rasulullah na mu doon dundeek ak i noonam nga xam ni moom li nga waxee sànq rek danga koy xool doo ko ñeme mais boo jaxasoo moom rek bëgg ko sallallahu alayhi wa sallam xam nga nag xaj mu laay yow ñi la xam ñëpp ci rasulullahi lañ la xamee ngay bàkk si sayyidina Muhammad moo tax doo ñëw ba fii waxtaan fi li nga fi waxtaan ba jóge fi dem te amul ay question yu ma lay laaj ndax ndax xaj mu laay am na koo xam ne mu ngi xam mu ngi gis Oustaz mulay Anne mu ngi koy dégg di ko seetaan ci TikTok bi di ko seetaan ci YouTube bi di ko seetaan ci plateforme yu baree baree bari mais ba tey am na lu bari loo xam ne xamu ko ci Oustaz Moulay loolu nag tey la ñu bëgg yombalal sa soppe yi la bëgg te xamuñu lu bari ci yow fi may njëkkee mooy bëgg naa xam kan mooy Oustaz Moulay Anne en réalité. barakallahu Oustaz Alhaji Abdallah laaj nga laaj bu neex a tontu mais laaj bu naqaree tontu. Mhm. Oustaz Moulaye Anne du dara lu dul taalibe taalibe bu bëgg nekk nag taalibe Cheikhul Hadj Malick. radiyallahu anhu. Mhm. ndax ndax ndax man sama dund ki yëpp dama koo jël jébbal ko Cheikhul Hadj Malick. radiyallahu anhu. daw mhm. ma ko dul Seydil Hadj Malick. sama dund yëpp Alaaji Malick. bugguma kuddul moom amu kuddul Daal taalibe la bu bëgg a nekk taalibe Cheikhul Xalifa na yàlla mottali ko ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, deuxième question bi nag mooy oustaz Moulay gis nañu yaa ngi tagg Seydina Muhammad ñaari question laay boole def ko benn question mooy bëgg nañu xam oustaz Moulay lan moo ko motiver dugal ko ci tagg rasulullah ndax dafa judd fekk ay waajuram di ko def mu topp ci tànk yi wala dafa am lu ko motiver ba tax mu bokk ci ambassadeur Seydina Mohamed yi di ko tagg ba ñëpp xam ko ci deuxième bi nga xam ni mooy nduru benn mooy Oustaz Moulay kañ la commencé tagg Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Oustaz Alxaaji Abdallah ginnaaw bi ñu ñaanalee sunu waajur yu baax yi sunu baay Alxaaji Saalix An yàlla yàlla dolli kawel aljanaam ci barki Seydina Muhammad ñaanal bu baax sunu waajur wu jigéen soxna Adja Ndeye Fatou Ngom moom itam ne yàlla kawel aljanaam te boole ko ak sëriñam bu baax ba Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ñun Ablaay amuñu maam buy tagg Seydina Muhammad amuñu bàyyi buroom tagg yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ku xam sunu waajur alxaaji Salih An imaam alxaaji Salih ca Thiès dundam bi yëpp alxuraan la woon mm-hmm. ak bëgg nag bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ba jeex takk ci moom mm-hmm. yaakaar kër Seydil Hadji Malick mm-hmm. mais li waral ñuy tagg Seydina Muhammad ak li nu motivé ba nuy tagg rasulullah mooy sunu mag sunu frère Oustaz Alxaaji Pape cofeel gu nu am ci moom ñun ak sopp bu nu ko sopp di gis li muy def mu neex ñu ñu bëgg ko moo waral ñuy tagg yonent bi sallallahu barakallah ak di ko roy nag mhm. mhm. moom oustaz alxaaji Pape mhm. mën naa ni man bi ma juddoo ba léegi maa ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma juddoo ba léegi maa ngi tagg sayyidina Muhammad sallallahu alayhi ndax samay wayjur soxna ndey ngom mu baax mi moom laa daan àndal mu may boot du ma yóbbu daayira bu nuy taysiir ma cay ànd boobu ba léegi ñu jugee ndoo man ak yow ca daara ja may way nga may may aw tabaarakallah non yaa ma doon aw <laughs> may way nga may aw <laughs> tabaarakallahu boobu ba léegi ñu ngi tagg yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam sal alxadim baarakallahu na yàlla barkeel ci daara ji Seydina Muhammad te ñu ngi lay ñaanal aussi yàlla yóbbu la ci fu kawe sa njort nga bokk si ambassadeur Seydina Muhammad yu mag a mag yi incha allahu taala dernière question bi nag pour ma ñëw ci xaj mu magay ndax temps bi xoj nañu mooy mooy bëgg nañoo xam oustaz Moulay lan la ko si dina Muhammad defal li ma yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam defal mënul paase ku ma gis may dox ku ma romb nga xool ma may dox da xam ni kii mm-hmm. kii bu demul tagg yonentu bi sallallahu alayhi wa mu déglu ci ñuy tagg yonent te loolu mhm. mënuma ko fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce la mhm. nga romb ñëpp lay xool xam ni sa dund gépp mhm. joxoo ko ku dul sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ma yonent bi sallallahu alayhi defal la ko oustaz alxaaji Pape An ni woon غلقت على قلبي فصرت محررا بفضلك قد اصبحت في النفس نفس سيدة الله ينديسان الله ينديسان لولو موم لما يولم تبي صلى الله عليه وسلم كما رمب كما رمب رك سوما خولي ديغا خمني سوما تاجيول يولم تبي صلى الله عليه وسلم ماغي ديم دي ديغلو جي ني تاجو يولم تبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من منمكو فاي سي غرام بارك الله موي ايماج بو خمني دا رافيت لول دي تاج بو نيه كو رمب مو خولي لا سيدنا محمد ما يالا گن كو جيمالي كانام ci daraje sidina Muhammad. ban conseil ngay jox gaay nga bokal geewu tag sidina Mohamed conseil bi may jox sama bop mom la len di jox mooy Ablaye mhm. ki lay jox dépense mhm. ta du añ Warga don mhm. koy war nga don banen nit budul yow fexel ba kula gis na gis ci yow personnalité na gis ci yow na gis ci yow yiw nga gis yow tedd nga puisque moom yonentu bi sallallahu alayhi wasallam amul lu tilim moom Seydina Muhammad amul lu tilim lépp ma set koy tagg da war a set am leer dëgg la kon daal euh, ñu xoolaat suñu bopp fexe ndurulu nduru jikkoy Seydina Muhammad ndax nit ki li ngay wuyoo day fekk nga nduru ko day fekk nga nduru ko te jamono bii ñu nekk du dox mukk te doxewul doxinu si juna sallallahu alayhi wa sallam jamono du dox te doxewul doxinu si juna Muhammad Oustaz Moulaye bég nañ bu baax a baax ci yow euh, soxna maam jaara borom limaahin Bachir boutique mu ngi yónnee ay nuyoo ci yow ñu koy ziyaara bu baax a baax nga xam ni démb la fa dem mu jox ay parfum yu am solo tabaarakallaahu mm-hmm. laay mm-hmm. il faut que ma foofu bu baax a baax a baax mm-hmm. ci soxna maam jaara borom limaahin Bachir boutique ñu koy nuyu di ko ndokkeel di wax ñëpp nag ku mhm. bëgg parfum bu neex mhm. demal seeti Limaïne Bachir ca soxna maam jaaram mi ngi ca géejawaay ca géejawaay marché Sam mu ngi noonu démb la ñu fa def lañu fa dem mu mu jox ñu parfum yu mucc ay yu garaaw ñu ñaanal ko borom Limahin Bachir boutique na yàlla dolli ko sàmm boutique bi bokk ci boutique yi gën a mag ci réew mi incha allahu taala mu nga ca géejawaay marché Sam ku fa dem di nga xeeñ lu neex di nga gis lu garaaw mu ngi noonu xaj ma euh, ci yow laay ñëw tabaarakallaahu sama rakk ji yaa nekkoon sama waykat nag mais léegi damaa tuxu maa ngi ci xaj mu Moussa léegi daaneel a mu Moussa moom mooy daaneel euh, mais ma gay ñu gis ni yaa ngi tagg si Seydina Muhammad ñun bi ñu la xamee ba léegi ci tagg Rasulullah la nga xamee bëgg naa xam balaa ñoo dugg sax ci sa tagg Seydina Muhammad bëgg naa xam ma gay ñang en réyalité mooy kan comme ni ma laaj xaj mu laay ah tabaarakallahu Oustaz Ablaye ginnaaw bañ sante yàlla julli na Muhammad sallallahu alayhi wa ñaan yàlla mi nga sant yàlla mi nga xamante ni moo ñu may ñu tàmbale ba yegg si fii di ko ñaan mu may ñu yegg ak jàmm waaw magay ñang moom pour xam ko du doon lu jafe comme ni Seydi Hadj Mari waxoon rek ne abdun daifun man moom laay wax jaam la boo xamante ni daal bu gën a lot ci jaam yi gën a yées ci jaam yi moom la nekk na koo xamante ni bëgg xolam bi fees dell ak sayyiduna Muhammad Jam boobu la bu ñuy wax Kok magay ñang kooku ñu mën gis ni mooy magay barakallah kon daal magay lah la bu xeebu ci kanamu yalla. tabarakallahu na yàlla na yàlla gën a nga gën a ci kanamu borom bi ba maqaamatul abd bi nga xam ni moom la nit yalla yëpp di wut yàlla na ko yàlla may ndax kër yàlla nit mënu fa doon dul ah, abd bi nga xam ni moom la nit yëpp di sàkku na yàlla defal lako ci daraje sidina mohammed mais xaj ma gay euh question bi ma lay njëkk laaj moy bi ma laaj xaaj mu laay yéen a koy bokk mooy mëgay ñang lan moko xertal ci tag rasulullah ndax da fek ay wajeeram diko def mu judd diko def wala da fa am lako motiver ba tax moy tag sidina mohammed ak kañ la commencé tagg yonent bi tabarakallahu mëgay nak amul mag buy tagg yenent bi wala wayjur buy tagg yenent bi xanaa nag mën naa ni sama côté wàllu maam bi jur sama wayjur bu jigéen dafa nekkoon góor yàlla bu jàmbaaroon ci alquran bu naan magay mbuub boo demee Tiwaawan boo laajtee alaaji magay mbuub ci fooñi njoolu fooñi lañ ko daan wax moom moo doon def bu jullaan fajar ba pare day wër Tiwaawan di jàng kaamil bala moo dugg ci kër gi kaamil bi jeex mu nekkoon jàmbaar jàmbaar lool mm-hmm. ba sëriñ Mansuur Si borom daara ji bëri na ay ay ay mbir yoo xamante ni jëflante na ko jëflante na ko sëñ Mansour borom daara ji ba ba doomam bi nga xamante ni moo topp ci sama yaay sëñ Mansour la ko tuddee moo ko yóbbu ci usine ICS moo ko wutal foofu liggéey mm-hmm. moom dafa nekkoon wa jànkat alquran waaye nekkul woon ku doon tag gént bi sallallahu alayhi wa sallam kon koy defee mm-hmm. waaye yàlla dafa def ni ba ma nekkee daara ji jàng alquran biñ jugee daara ji dafa amoon benn waaye ju naan Serigne Sambu dama ko bëggoon lool ba mu ci moom sago dama fu fu nit musa a xam ne dina fi ñëw rek dina ma wax ne ma magay ñang Sam dina ñëw fenn fii ma dem seetaan a ma jaral ma jóge fi dem ba ndànd faal di ko seetaani ji musaana way damay jooy loolu kooku mo yokk tax ma dugg ci taggentu sallallahu alayhi wa barakallahu na yàlla barkeel la ci daraje Seydina Muhammad mais mu ngay loolu la yonent bi defal ah yonent bi sallallahu alayhi wa defal comme li mu laayoo tontu rek laa ciy tontu ndax yëg naa ni fu ma fu ma dox romb euh, dañ may gis daal xam ni kii yenent bi rek moo ko ñor dalay dalay may personalité mm-hmm. mos naa dem mm, may dem di féexal sama xol ci ci ci ci géej mm, bi ma demee palage bi ma demee xam nga géej moom ku ku ñëm géej da xam ne géej moom milieu la boo xam te ñëpp fay daje mm-hmm. yàlla nattu ma bi ma sangoo ba génn ci géej gi rek sama yére bi wàcc sama yére bi aju bi ma ajoo benn waaye dox sama ginnaaw ba mu yàgg mu ñëw xëcc sama yére bi wàcceel ma ko te xaw ma ko après ma jàngat ci lu bari nag ndax bari na géej ñu fay ñëw ñoom dañuy def yaramu neen mm-hmm. te ko yàlla dimbal la yow nga taxaw rek mun a ñëw jël yére bi rek xëcc ko sa ginnaaw rek wàcceel la ko mm-hmm. am na lu yàlla def ci yow am na cër gum xool ci yow te li ma gën a yëg ci yonent bi nag mooy mm-hmm. yenn saa yi ma tëju man dong ma xalaat ci mbaaxam ma jooy oh. yëg naa cofeel ci yonent bi baa xam ne óoma ci moom sago damay gis ay photo yoo xamante ni biir màkk la ma ciy jooy yàlla rek a tax may wax oustaz Mouhamed Ndiaye ndeysaan mos naa ko dégg muy waxtaan mu ne bi mu demee màkkatal mukarram mhm. dafa jógee màkka war a dem Medina jant bi di so muy dox mu mu jëppaare fajar ba jant bi di so muy ñuy dugg dugg Medina wax jooju toog naa ko sama kër man dong di ko jooy ndax yeneen bi man yeneen bi distance boobu Oustaz Mouhamed Ndiaye jël ko biis mhm. moom mu jëloon ko fas di ko dem ngir gàddaay yëg naa ne daal yeneen bi def na sama xol bi cofee sallallahu alayhi wa sallam na yàlla gën ko yokk te yàlla yóbbu la fu kawe sa njort ci daraje Seydina Muhammad dernière question bi mooy magay ban conseil ngay jox ñi nga bokkal géewu tagg Seydina Muhammad ah conseil bi may jox ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa mooy bi may jox sama bopp rek mooy ñu fexe daal ba suñu xol yi mu fees dell ak yonent bi sallallahu bu feesee yonent bi rek duñ juum wallaahi loolu rek laa am conseil bi ma leen jox barakallahu kon nag ñu fexee def ci suñu xol yi Seydina Muhammad nañu ko bëgg di ko yëg te xam ni moom yonent bi li fekk yaa ngi koy yëg amula yaa gën a tedd ku dul yow moom li fekk nga koy yëg ngay gën a barkeel ku dul yow bu ñu koy tudd sax sa xol di neex jamono jooju yaa ëpp sécurité ku dul yow kon ñu koy yëg moom Seydina Muhammad ne yàlla doolu ñu ko bëggloo ci daraje Seydina Muhammad xaj mu laay waxtu wi xoj nañu waaye yàlla xam ne doyaluñu ñu bàyyi la nga nga nga joxe sa mot de fin muy tàggatoo bu dul tàggoo ba beneen yoon incha allahu taala ndax da ngay ñëwaat. tabaarakallahu Oustaz Alhaji Abdallah mhm. bala may tàggoo rek. Mhm. may yëgal mbooleem ñi bëgg yontu sa sallallahu alayhi bis bi sama way jur di defal sëñ kër Si. Mhm. muy Adja Soxna Gañ Siri ba. le vingt août lay doon ca Géejowaay ca Géejowaay dëgg la ca hôpital Dalal Jàmm. mbedd mi jàkkaarloog porte d'urgence bi. te école Njarka Jaañ Sadji Sarr bu maam rawaan ngam moo koy way Saaj mu laay am mu koy fii di ci invité mbooleem ñuy takk rasulullah te man maa nga fa te yow yaa nga fa barakallah xaj ma gay alxaj ma gay ñang tabarakallahu bu ko defee rek di sant ñëpp oustaz abdallah di gërëm ñëpp di la ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla sàmm la taxawu la ba mbooleem loo bëgg ci géew bi yàlla defal la ko ci barki Seydina Muhammad di nuyu waa Cees gépp sama mag sëñ Babacar Anne sëñ Mansour Anne ndeysaan tabarakallahu di bu baax a baax soxna Mareetu Gueye mhm. nga xamante ni moo taxaw taxawaay yooyu bu ci man ak sama yaay Adja Gañ Siri Ba mhm. nga xamante ni kenn du moom ci man tabarakallahu barakallahu euh, teraanga li mu may defal bari na mhm. fii sama way bu ba léegi euh, daf ñuy xool bëtu ñeewante tabarakallahu ñu ñaanal ko yéen ko taxaw ko yàlla aar ko si ginnaaw nga xamante ni nuyu nag soxna Mari xalifa bu sëñ kër Si ndeysaan di jégalu ñëpp tabaarakallah salaamaaleykum waaleykum salaam wa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xaj mu raay baax aan di la ñaanal yàlla bu la kenn ëpp la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye itam ñaanal la yàlla dool la sàmm doolu la barkeel ci sacrifice bi nga def jóge ba Thiès ñëw fii ngir yàlla ak coloré mais ngir mission que Seydina Muhammad ñu ngi la ciy jëfal bu baax a baax ñaanal la yàlla barkeel la incha allahu xaj ma ngay ñang bu ko defee ma bàyyi la yow nga joxe sa mot de la fin muy tàggatoo bu du tàggoo ndax waxtu bi xoj nañu mais yàlla xam na ne li ma bëggoon nga way ko xaaj bi sax wayoo ko mais dangay ñëwaat incha allah. ah tabaarakallaa ñu ngi nuyu suñu jur bu jigéen di Adja Soxna Mbuub di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam. ci barkeent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom lañ am ci moom lañ fi dese. Mm-hmm. di nuyu sama tànt Seyna Mbay di nuyu suñu waa kër ñëpp di nuyu. sama xarit sama ménagère moom nee na mooy sama ménagère Demba Ñang mm. di ko ziar nga xamante ni danaan su ngeen teggéeyante bi dara ma yóbbaale waaw ala Demba dee ko déglu <laughs> kooku dee ko déglu di ko nuyu baax di ko ziar di nuyoo beral nuyoo nag sama soxna Sooda Diop nga xamante ni su may génn mm. moo may xool ba ma baax tabaarakallaahu mu doog maa bàyyi ma génn mm. di ko ñaanal yàlla yàlla li mu bëgg si njabootam rek yàlla na ko yàlla may barkent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu di di dégg ma naan di nuyu di ñaanal sama yaay ji nga xamante ni ku ma gis rek te xam ma rek xam ne ci moom la ñu xamee muy Zeynab Fall mm-hmm. yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm ci barkent bi sallallahu alayhi di nuyu ay njabootam yi nga xamante ni ñoo fi des ak jëk jëkkëram muy Samba Sarr ak Khady Sarr mm-hmm. euh, Fatima Sarr Ahmed Sarr ak Awa sama jarbaat ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara di nuyu Khady saw ak mbo ñu ngi nuyu ñëpp ku ñu limee daal dañuy juum salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi lay jaar jëfal bu baax a baax ak mëgëy di la ñaanal yàlla doon la sàmp waaye itam yàlla doon la aar yàlla bu la kenn ëpp la ci Seydina Muhammad ñu ngi bég bu baax a baax ci sa teewaay ci plateau bi la ak sa rakk yu baax yi nga ko àndal. ñaanal leen yàlla sàmm leen ñoom itam ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki mu ngi noonu seen émission Al Moukhtar mu ngi noonu ngeen àndoon ko ak seen xarit xaritu mbooleem ko bëgg lu baax di oustaz alxaaji Abdoulaye Anne ñuy jaarjëfal mbooleem téléspectateur ak téléspectatrice yu Tab TV yëpp ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm mu ngi noonu ñu leen jox dig daje ba beneen aljuma ci beneen numéro incha allah taala in uridu ila al islaaha ma sataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu